waaw digganteeg Soumboulou d'abord. waaw non Soumboulou suma sœur la suma rakk la yàlla boo ñu nañu. Hmm, mu nekk suma jabar nekk suma goro nekk suma lépp du dëgg yàlla dogal tamit ñu koy mayee ma def ci li ma war def ci sama devoir ndax daanaka léegi mbokk lañ famille la fu doom juddu mbokk am na fa famille am na fa rawatina macha allah famille bàcci li ñëpp nekk sumay xarit nekk sumay nit ay magam ay doomu baayam ay tantaam ñëpp nekk sumay xarit. ñu bëggal ma seen bop aussi deug kon yoll la ñu tax sumbulu ma ñëw fa jàmm nak mbokk yi ma gëjoon gis nak corona bi taxoon ah gis nga gaay yi namoon nañu xew namoon nañu aussi tamit bëri waaw loolu ko mais yeen rumeur yi yu négatif nan sey bi du yàgg sey bi du yàgg ciow loolu jot nga ci non man jotuma dara parce que am lo xamé euh, nekul sax sama bop ci yow la ko dégg on dit la vrai man dal lima gëm sumbulu may maye nañ ko ci farata ak sunna Muhammad sallallahu alayhi ku koy ñaanal na ko ñaan yàlla mu sëy te toog tey lépp loo gis àdduna dafay jeex amul luy continuer te ni ma ko xamee xam naa ne borom jom la ku am fulla la ku am fayda la ku am personnalité la ñàkkul fayda bay déglu ay jàmbur ñaan ko sëy day yàgg wala du yàgg yaayam bi ko sukk jër musul sëye noonu te sey na fa ba lii fekk ko fa moom bu xoolee ci yaayam ba tey ay kilifa di tax ay doomam ba di ko tax kon war na mën a xam ne kon sëyal na sëyal moom ay doomam c'est très important man ku xool suma yaay nu mu sëy ba mun fa jur ay doomu kilifa ak keneen ku mun doon ak ñu ñu xam ak ñu ñu xamul kon sumul war na mën a sëy ba dee man daal yàlla na ko yàlla jàppale. te nit ñi bàyyi ko mu sëy quoi. yàlla na ko yàlla jàppale. sey bi du affaire affaire tale. bi muy liggéey wala affaire ay théâtre bi muy liggéey déedéet ça n'a rien à voir ak loolu sëy jaamu yàlla te yàlla rek tax te gëm naa ne dina fa sëy dina fa jaamu yàlla jëkkëram ku baax la xamul ma ko lu bon li ma ko xamal rek laa koy wax sumbul xam naa ko biir xam ko biti mais jëkkëram xam naa ko li ma ko xamal mooy lu baax laa ko xamal du ci yokk du ci wàññi waaye daal yàlla na ko yàlla jàppale te aar ko sàmm ko ak borom këram mu sëy fa waxuma sax mu sëy fa sëy day yomb na fa seey am fa njaboot gu barkeel já jàppale com merci beaucoup askan bi